foofu dañoo waroon xaar sax au moins ba justice wax euh, am déet ci li nga xamante ne moom moo jëm et puis également euh, Cour des comptes peut-être confirmer wala infirmer les propos avancés par le premier ministre jëmale ko ci chiffres yi ñu jàpp ne dañ ko euh, falsifié. waaw Fatima xam nga Sénégal yu bëri xamoon nañ ne diggante le président Macky Sall ak le premier ministre Ousmane Sonko Sénégal yëpp xamoon nañu seen diggante mosul rafet. yàgg naa ñaaw te fi mu toll nii ñu bari xam nañ ne mi ngi ñaaw ragal naa nag li may gis nii muy dem dina gën a ñaaw te am na fu ñu toll nag fokk am ku wax te Macky li mu def nii nii la mën a def parce que dafa am fii ay mbokk am fi ay am di jàmm am fii opinion publique boo xamante ne dañuy bàyyi xel malheureusement ñu nekk si dëkk boo xamante ne ku njëkk ñu bëree bëri si ñoom ku njëkk si seeni nopp yow gañ nga leen olof Ndiaye day fa di wax nag benn lay pàkk la te am na ñoo xamante ne benn nopp lañ aussi loo xas bu duggoo seen nopp loolu la ñuy gëm ne moom moo am te Ousmane Sonko xam nga lu ne wax na ko fi mais gars yi aussi fu ne noppee nañ ko Ousmane Sonko musul wàcc Macky Sall wax na fi ne woon ne dafa complot si moom pour bañ mu nekk candidat waxoon na ko fii aussi yu bëree bëri moo nekk si ginnaaw yu bëree bëri bëri Macky Sall musul tontu waaye nag dafa am loo xamante ne day commencé luy raam si ñag ba lay jëm am na nit fi muy toll si senegal gi ñu toll nii dama ko yàgg a waxtu ko waxaat tey ndax waxoon ko fi fi ñu toll si Sénégal képp ku ñu fiy waxal lenn génneel nga jàkkool Sénégal ngay wax parce que ñun ay sénégalais lañ te xam nañ jikkoy sénégalais ñun ñu si bari su ñun. benn nopp lañ ki jiitu si ñun lim ñu wax lu ñu gëm moo tax ñu agsi fii tey ba agsi kon Macky pour pourquoi mu génn wax dafa jot ndax accuser nañ fii ñu bëree bëri ñun ñëpp xamuñu Mame Mbaye Niang wax nañ ko fi Mamour Diallo wax nañ ko fi Amadou Ba mii wax nañ ko fi général Moussa Fall wax nañ ko fi Félicité Antoine Diop wax nañ ko fi et mun naa koo lim fii ba fajar du daj boobu ba léegi nag. ñoom ñi ngi noppi mais gis nañ conséquences yi mooy Sénégal yu bëree bëri si ñoom dañoo gëm ne li leen waxal moo am waaye léegi ni Macky Sall amee courage ba fa ba mu wax dama koy ñaan noonu la ko Amadou Ba war a amee courage wax noonu la ko ñeneen ñu commencé wax parce que xoolal ma ne wax du tax nga sa gàcce feeñ wala bañ a feeñ wax du tax nga war a dee wala doo dee dama ne il faut que nit ñi di génn dee la seetal seen der te nag accusation yi ñu accuser Macky Sall si wàllum ay chiffres yu ñu xaw ma falsifié mais loolu c'est extrêmement grave foog mu jéem a génne moom aussi na na se mu joxee sa version des faits li ma si jaaxal mooy peut-être que ni mu demee ba bitim réew du ko fa wax mais parce que am occasion bu ñu xoolee bu ñu xoolee interview bi. bien sûr bien sûr wax rencontre la woon bëggee nañu ñu euh, sur la question parce que dem na bay wax ne euh, peut-être que de même la sortie euh, du premier ministre. dafa mhm. affecté. Mhm. li nga xamante ne moom moo di euh, Sénégal. justement ba ba régressé ci li jëm ci. foofu foofu laa doon waxee mooy déjà dem ba wax ay wax yoo xamante dafa extrêmement grave te yow nga nekkoon ancien président de la République du Sénégal. nga xam ne responsable si say ndodd la la nekk il faut que mu wax te wax boobu dama koy gën a gën a jàpp ne man su ma doon conseil Macky Sall non pas ko waxee bitim réew na fexe ba gën a imposer wu que ñëw si biir réew mi toog ak sénégalais bu fekkee ne moom li muy wax dëgg la si moom mu mën a jàkku sénégalais wax ak ñoom parce que foofu la ñu toll. beneen bi aussi mooy bàyyi leen xel ne Macky Sall dafa am njaboot te mi ngi encaissé boobu ba léegi des coups Macky Sall mi ngi encaissé lu ne lu ne ñu ngi koy teg si am na ay doom am nañ ko si xam Amadou Sall. am na soxna boo xamante ne sénégalaise comme ñun ñëpp ëpp ñu ko dara si réew mi acharnement bi ñu teg si Macky Sall dafa doy waar. parce que mënoo comprendre que yow bu fi bi mu ñàkkee nguur gi bu fi toogee yow nga ne bu toogee dina def ay lobby pour mën a yàqal ñi fi nekk su fi toogee nga ne bu toogee dina fexe ba yàqal président Diomaye bay su génnee nga ne mosul bëgg réew mi. et bu génnee nga ne mi ngi nii ñoom mosu ñoo faal bi mais bu ñu génnee dem bitim toog fa bërki démb moo njaay la ñu gis ab sénégalaise. boo xamante ne dafa ñëw ba si aéroport di agressé Macky Sall agressé ko si ay kanamu njabootam mais image boobu aussi dafa doy waar ñaata ancien président la Sénégal am Abdoulaye Wade gouverne na ba bàyyi dem na yoonam kenn tegu ko sax la ñu teg Macky Sall Abdou Diouf bi kadee di wax gouverne na ba dem yoonam kenn tegu ko la ñuy teg Macky Sall fii nii comme li li kadee wax am na ñoo xam ba léegi mu il ne peut pas tourner la page de Macky Sall Macky Sall suba Macky Sall ngoon Macky Sall bëccëg Macky Sall guddi bu demee ba toog ne nag ne même Macky tey bu ñëwoon sax dañ ko woon tax tey li nga xamante mooy barricade ko loolu nit war ko xalaat ko wax Pape Ndiaye bu Walfadjri war naa mën a toog di xalaat loolu ne bu ñëwoon sax moom bokk na si yi nga xam ne moom jàpp ne na sax li gënoon sax mooy bu ñëwee ñu mën koo mën a sax Euh, am fu ñu def ko comme ni defoon Ousmane Sonko. pour résidence surveillée. pour résidence surveillée pour li nga xamante mooy jàmm réew mi wala stabilité ba la fi Macky Sall def loo mën a wan garaaw man jàpp naa loolu du lu ñuy mën a wax du lu ñuy mën a wax si kilifa loo xamante ne aussi yow man boo ko ne cherche pas à plaire à quelqu'un xoolal li nga xamante ne mooy yanu maanaa nga wax ko ak li nga xamante mooy suñu ormay réew parce que nag ñun xamante nañ ñun on ne pas à plaire. li nga fi defoon bëgg démo Ndiaye ak li nga fi waxoon sénégalais yi ba léegi fàtte guñ ko Pape Ndiaye war war fa jëlee dama jàpp ne nag nous ne sommes pas là pour li mu def noonu nag pour man sénégalais la au delà de mu nekk président du Sénégal ancien président du Sénégal sénégalais comme ñëpp am na droit amu ñëw fii bu fekkee ne yoon da ko war a teg loxo mu teg ko loxo bu fekkee ne yoon dafa am nu koy toppee mu toppee ko mais lu ñuy mënti wax nañuy àndi ay preuve preuve nag moo séparé ak ñenn ñi parce que dafa ñoo xam boo leen waxee ñu gëm la am ñoo xam ne tant que gisuma ay preuve du ma la gëm ki war a andi ay preuve kii war a joxe preuve ki war a départager ñëpp mooy la cour des comptes si wàllum chiffre yi wàllum waa la cour des moom mooy certifié ba xam kan moo wax dëgg ak kan moo wax dëgg mais dama jàpp ne man si sama conviction bopp diggante Macky Sall ak Ousmane Sonko yàgg naa ñaaw te mi ngi ñaaw te day gën a ñaaw bu si nit ñi jugul wax si moo tax nag li Bougane di wax ma dama koy d'accord à chaque fois mooy toolu bàyyi soo yi boobu dañ ko leeral mooy ñoom ñaan lan la ñu déggoo ak lan lañu ñu déggoowul ndax la ñuy déggoo ñu ngi koy déggoo ba léegi ndax dañoo déggootul ndax fi mu toll nii kenn daa sant ne kenn ki daa bàyyi moroomam wala diggante bi daa am lu ci gën a ñaaw loolu nag sénégalais tant que xamuñu ko li ñuy def nii acharnement boo xamante ne sans raison tegguñu ko fenn léegi nag Macky Sall courage ba mu am peut-être pour jéem a toog ne moom dina weddi ñi ñu tuumaaloon aussi yéen aussi jëm leen toog ngeen wax ak sénégalais parce que réewu Sénégal fa mu toll mooy ku ñu fi tuumaa da ngay génn wax parce que ñoo nekk ci Sénégal boo xamante ne ñenn ñi lu ñu dégg gëm la benn nopp lañ te muñ déggee xas ba gëm gëm nañ ko loo waxtu ñu ne diw moo wax ñu loolu lañ gëm euh, très bien euh, ñu ngi xool nag euh, peut-être ndax ñeneen ñi dinañu génn tontu ou pas parce que Amadou Ba donne rendez-vous également à une trente pour faire face à la presse loolu la joxe ginaaw ñuy ñëw ci moom di ko nuyu bu baax a baax day faatu ziar nañ la delloo ziar maa ngi lay fay Fatima amin mbégte di jégalu ci retard bi y' a pas de souci jàll la rek suñu suñu kii bi suñu. single bi noo xam noo xam fi Kayta. Ah. place am single la. dañ ko bàyyi mu génn. il a servi à son pays. waaw ah, macha allah. Euh, ngi xeex ak Kader. Hmm. jarul tëj nit kaso. kon nag toogam ci kaso bi dañ ko xoolaat bu baax. très bien euh, balaa ngay ñëw sax euh, wax naa ko doo ci ci ci ndorteel bi ngir ñu bàyyi ko mu mën a dellu fi nga xamante ne moom moo di këram ndax place am du foofu mu nekk ci euh, prison bi ci wetu njabootam la nekk une pensée envers sa fille maman Keita également une amie